Salam alaikum bokki Boubacar Diallo la si gi mon pays si benen numéro Waye monsieur le président de la république El Hadji Macky Sall monsieur le ministre des forces armées monsieur le ministre de l'Intérieur. ci sama kàddu man Boubacar Nous ñoo ngi sant soxna yu homme de tenue képp ku bokk armée bokk police bokk gendarmerie ASP bi. ak fuñ la mën ta affecté détachement bu mën ta nek man bu bakkar jara ma ngi jël sama cadeau dila santé la sa soxna kenn soxna yu homme de deni yéen mëna muñ yeen soxna homme de deni yi dal yéen jigen jigéen ñu gën di sëyat ñu gën ci bir réew mi di len jappalé ci njabot bi yalla njabot bi barkel ndax jigen ñu nga xamanteni ñoy ñooy sëyat les forces de sécurité et de défense ñaari at sa borom keur de mission nga nek sa keur gi yar njabot bi waaye gàcce ngalaama yow yow yaay jigen yow yaay lingeer yow yaay ku gën ci jigen yow yaay yang ju gën jigen ju nga xamantene ne ci keur gi sa borom keur andi la ci keur gi ñu affecté ko fu sori ci bir rew mi ngir jamu askan bi ngir taxawu askan bi si sécurité yow nga tok yor njabot bi yalla njabot lo ju ASP bi toog volontairement ne day jàppale les forces de sécurité et de défense de sécurité seen liggéey bu rafet les ASP du Sénégal seen soxna toog du muñ c'est soxna toog di dégg lu une ñuy du di muñ kon soxnay ASP yi gàcce ngaalaama yéen ci sama tour. jigéen ñu nga xamante ne tey jii ñoo ngi ci les forces de sécurité et de défense de sol tenue ñu ci ASP bi ñu ci police ñu nekk gendarmerie ñu nekk armée ku mu ci mënta doon ba ci santé ba ci eaux forêt ñoom gàcce ngaalaama ndax ñoo ngi liggéey di jël seen alal seen ñàkk di ko yóbbul seen njaboot ñu koy bokkal seeni i borom kër ñoo ñooy les dignes fils de ce pays gàcce ngaalaama jigéen homme de